waaw jànq jànq war nañoo takk da jànq war nañoo takk jeeg mais bu njëkk nag takk jànq lañ gënoon taamu. ok moo tax góori démb ak góori tey dañoo am différence. Mhm. parce que euh, bu njëkk ni ngay def nii dem ba takk jànq takke ko jànq. Mhm. te fekk mu soo xam ci moom dara. Mhm. nga dem ba takke ko jànq yow ñëw nekk ak moom fekkoo ci moom dara. bu njëkk góor yi njëkkee daaw ñu ko muñ. ah bon c'est très rare. ngay gis ko génn siguñu carrément ñu ma ci joxoon nañ ko delloo. ah bon lu ci ëpp. wala ñu téye mer moo xam en boo xam ni yaa ak ci biir kër gi nii rek ngay def boo xëy wàcc yoon wi rek ñu jaar foofu. parce am na ko ko ci jiit. waaw mhm. comprendre nga en boobu day nekk seen xol. day doon soog. yow Mbodj da ngay ci kër gi mel ni leen neex rek coow du am moo tax en général bu mu saan dal jànq day moytu lu bari ci kër gi daawul nangu dugg ci détails yu bari parce que am na faay bu ndaw rek boo ko defee sa borom kër daf ciy jaar. wax la kàddu boo xam du jaar ci digg bi mais dina junj kàddu boo xam ma nga mel ni na teg xànju mais léegi loolu xewatul. waaw ah xewatul parce que dindi nañ ko. te bala may duggee foofu nag sànq li i wax ni. Hmm. Euh, xale boo ko da nga koy jàngal gis nga des fois. Hmm. nga nekk xale. Hmm. yaroo ni nga war a yaroo màgge ni nga war a màgge. juddoo fi nga war a juddoo. am jikko bu rafet bu ne ci yow. mais góor mën na laa takk ma du fiyee la. jikko bi nga du dox bi ne la boo demee jëlal jikkoy waa kër ga boo demee fekk waa kër ga seen jikko meloon ni nga mel nag wala waa kër gi seen jikko uniquement yow leer na ne boo ko jëlee arrangé wu la kon yow jikko boobu soo ko jëlee dalay daal di sonal te nee leen tout le temps gis nga jigéen bi ñu yar mu juddoo ci kër yaroo ci kër ba toll ni mu toll mënta ñëw tey tey nga changé ko tey tey sëy yi bari mu ngi tas ci erreur yow Mbodja Mbaye ñëw tey foo jaar jikko bi ne ci yow du ma koy dindi comprendre nga da ngay naxanteeg Mbodja rek bu dafa am jikko bu nekk ci moom bu la neexu da ngay def ndànk ba dindi ko am yoo xamante ni uniquement carrément ñoom dañ leen a xamalu dara yaay yu ci bari na dañ cee gérer taabu góor. Mhm. doom bu jigéen da nga koy jàngal parce que jigéen fi nga jaar yow mi yaayam ci kàddu gi foofu la jëm si ku ci am 40 ans sa yoo sa yaay sëriñ bu ne dina fa ñaanlu. dëgg la. bu yeg Dakar ak si démb ak njambaan yépp dinañ la ko sangee pour bëgg nga jaar. Mm. ñaanal ma ko boroom kër gu baax kon yaa ngi séntu sa borom sa sa doom jooju am borom kër gu baax pourquoi pas yow doo ko jàngal balaa am borom kër ni mu war a mel ñun suñuy temps bu njëkk xale tey dama leen di xool dama leen di ñëwee parce que dañoo gën a yeewu ñun suñuy temps ñoom lii ñuy fawee yëpp ñun doonu woon suñu istil ñun daawuñu ci dox te loolu yàggul àdduna gaaw rek mais loolu yàggul loolu yàggu fi yàgg boo xam da ngay ay ati ati at la day mel ni ngeen démb ak tey. kon jamono moo gaaw rek mais li yàggul ci koy ñoo changé mais li fi nekkoon ba tey mi ngi fi moo tax doom bu jigéen soo ko juree xam ne kii jigéen la teel koo dëbb ba mu mokk mais am na yaay yu bari yoo xam te ñu ngi yaare seen doom yarin yoo xamante ni dañ leen di sonal ëllëg doo leen jariñoo keneen du leen jariñoo parce que li nga li la sa yaay mën a supporteel du man nii mbooju jur sa jëkkër maa la koy a tëdd sa kaw la lu yaay guddi nga fanaan fa ba une heure ci bëccëg wala deux heures nga yeewu tàngal sa ndékki ndékki ba suur sangu ba set diw saw yaram tëdd yére bi nga sax sa yaay la koy fóotal yow toggoo yàq koo fóotoo bale woo paase woo jël say loxo lii mi ko ba mu rafet ak say tànk dina neex sa kër yaay de ndax am na yaay yu ko nangu mhm. mais am na yaay yoo xam te dañuy dërëj seeni doom ba fu ñu dem dañ fay toog da ngay mujj sax naan est-ce que kii moo jur moo jur daa xam nga génn ci loxoom ëllëg te bëgg na foo dem mu def ci yow qualité boo xamante di nga fa toog mais ama tey ji nu yaay di yare doom yaa ngi defe ne yaa nga yàq yaa ngi yaa ngi dimbali sa doom danga ko war a te da nga koo yàq. mais fii jamono toll Mbodia Mbaye jamono dafa toll foo xamante ne bi daanaka yow li ngay wax nii euh, lu démb la ah. mm-hmm. ñëw sa yëg goro donc sa yëg parce que léegi sayu appartement yi. moo ci mm-hmm. gën a bëri te sayu appartement bi yaakaar naa ne ki nga war a bégal dëgg-dëgg mooy rek sa borom kër. Mm-hmm. naka ngay fexe ba bégal sa borom kër ba dox si euh, ay ndigalam euh, moo tax ma duggee yow ci question boobu nga xamante ne bi mooy sayu jànq ak sayu jeeg ban moo ci doon li nga xamante ne bi sax góor ñi moom la ñu taamu léegi. góor ñi léegi jeeg lañ gën a bëgg. ok góor ñi. Hmm. surtout sa classe gi jeeg gi lañuy ñuy wër sa classe gi yow maa ko waxoon maa ko waxaat. yaa wax mais ngeen amoo leen benn temps di jël ay xale ndaw di leen yar te loolu chaque jour góor ñi ma koy confirmer ban ki dem ba ci mujj maa jël ci di ñibbi taxi man jabaram xale bu ndaw la dafa romb ci buntu kër am lu mu ko jox ñu continuer. ok mais carrément dañ ma su ma doon takkaat du ma takkaat xale ndax oo ma jotu xale yii. moo ko am mu ne ma xale dañoo tëlee mënuñu xale yi mënuñu te dañoo boole tële ak dëgg ak bopp. ok dañoo bopp boo demee léegi ba xale bu góor bu ndaw di waraat ku say ba taas pour takk ko parce que góor moo bëgg jàmm. góor moo bëgg ku ko tal góor moo bëgg ku am jotam. yooyu ñu jël lépp léegi dindi ko ci say moo tax say amatul ndëgëraay. day tas mm-hmm. parce que góor nag taakaal la na boo nekkee ak moom ci kër. amaloo ko njariñ mhm. footoo paase woon bale woo fompoo raxasoo toggoo mhm. ah loo koy jariñ nag setoo ku la ci gën a rafet boo boo ko sekkee fa mu tëdd ba koo rey lu ñu summi taxañ nañ too teg bu ñu waree génn fen lañu jël fóot weer mu wow ñu sol dañu taayal waaw ñi xale bu jigéen boo ci dugg buy say jegg ci bari boo duggee seeni néeg da nga naan xanaa dañuy fay armoire boo ci tëj yéree daanu sa kaw góor da lay woo di lay jooti carrément ni la man sama jabar tey boo duggoon ci néeg bi may fanaan danga naan est fii jigéen fi yeewoo yàlla boo sëyee ñoom ba ñu benn doom surtout ma leen barke Sëriñ Bamba benn doom la ñu am fàtte la yow papa kooku baa ne ñaar doom nga dee de moo tax góor ñi bari génn xataraayu rayante ci mbedd yi man maa la wax li man boo jëmbaay am na góor ñoo xam ne ku leen téewoon génn ci mbedd daraa leen ci ñoru ko leneen. est que góor li muy wuti ci mbedd mi mën nañ ko koo jox ci biir këram. ah kay góor dañ koy këmm kaay koy yiir am na noo koy téewe day rus a génn sax ci mbedd moo tax xale yi li war a téye say loolu lañ bàyyi mu dem xamuñu fu ñuy taxaw li war a téye say yor code bi. Mhm. caabi di nga génn karet boo soxlaa tijji ni nga jëlee sa téléphone bi tey jox ko jumbóori mu téye xamul fu muy jaar. Mhm. man borom code bi maa ko ñëw mën a néew tijji code bu yomb la nag muy tal sa jëkkër am jotam. tal sa jëkkër waaw da ngay sa jëkkër am jotam nangul ko ci set ci li muy sol ci li muy lekk parfum bi muy xeeñ ak bu jëntal bi muy néeg bi te néeg ak kër ak kawlal bu ñu benn. mais ñu bari ñuy génn néeg bi moo tax ñuy génn ah. waaw moo tax man na néeg nit mën naa mën néeg or nga sa néeg ba mu rafet foo jënd yoo gis ne gis maa jigéen jënd defar ba mu baax nga ni mbooja mbaay tey la fi toj ay nelaw la koy mottalee. day waaj day tëgg mbappat mi waaye du bëri te loolu ëpp ci jeeg gi maa ñëpp a yam dañuy teg déguisement yi nii romb nag jënd ngóone looy jaay nga andi xeeti baax baax yi ba ramasse ko ba mu jeex ñëw teg parfum yi coiffeuse yi dama koy yan ba mu fees sama jëkkër mënu cee xam leen ndax balaa ñëw ma tëdd sama ko a tëdd da lijjantuma leen ma man waaye mën naa préparer ndax jéggee wax ma dégg tambooje man la waaw nga ne ma damay jënd xeetu baax baax jëkkër lu muy dund am na jeet joo xam ne tarkaala seen néeg tuuti matériel nga fay fekk waaye lal bi leen mën. d'accord waaw lal bi leen mën te góor li toj yóoram ci lal la sàggade ko seet loolu ñuy jof naan loolu doogu du sëy mooy sëy bi nag. ndax ah, parce dañ la koy reproché ah. naan la ngay waxtaanee tout le temps tout le temps lal bi la lal bi la est-ce que lal bi kese mooy sëy. yow nañ bokk ndey naa bokk ak Jimbo ñu ndey ak baay. Yambour mën naa ko jariñoo ñu ngi bokk benn kër di lekk dina ànd bu jantalee ngoone mii mu mu dagan mooy man ta man mënta sëyeen teg man maa ngi moo bokk ndey ak bàyyi lu mu jàntal jantal du ma owoo ci moom soxla daganu di waaye léegi bu doon lekk ak naan kese nag dañ bàyyi complexe bi te waxante dëgg nag ay nit lañ duñu ay dof ku demul Mauritanie xam nga ni gileem bari na fa te dañuy reer mhm. te dañoo bëgg ndax xari ndaw comprendre nga mhm. duñuy dof sonal gis nga vulgaire ak waxtaane biir néeg du ñu benn. comprendre nga yow vulgaire ba ngay xale dem ba toll si am loo surtout sa jamono yor sa kër yor say doom di wër di vulgaire ban sens la am li ngay wax daf lay intéressé parce que ñun complexe moo sonal man lii may wax du pour man su ma nee bëri lu ma bëgg a def ko kon man xale yi ñoo ma tax di wax kon suñ ma jàppee loolu wéer nañ. Mhm. gis nga biir ne jëmbóor yi nii ñu bokk ndey ak baay rakki jàmbur keneen lay takki. sa yëg moom bu dee lekk ak naan na ku nekk ñibbi seen kër bu dee lekk ak naan doomu moo tax ñun ñuy sëy kon na ku nekk ñibbi seen kër wax ji nag déggin la laaj ku nekk seen kër am na lekk ak naan bu dee da ngeen di xëy sax mba raaj jimboor de ko loxo ma dugal loxo mais eh, pourquoi jimboor dem takki jabar andi ko fi da ko andi pour xont ko noonu kese. donc kon da nga gis ne lal bi. kaw lal bi muy sëy nit moo jox ko waxtu ji jóg barke Serigne Bamba. jërëjëf mais eh, kon fan la jeeg ji dañoo gën a. bu ñu sëyul ndax dinañ am doom bu ñu dund bu dund amul. waaw waay waaw waay. mais waxante dëgg rek mën nañoo yenn ci kër di lekk di naan di bale di fomp kese lan moo tax lislaam la sa borom kër boo demee nekk moom ci kër mu dem ba mënatul ci kawlaal bi soo mënee muñal soo mënul demal lislaam dagal na nga tas sa sëy kon lu la fa yóbbu jigéen da koy mën nga toog muñ ñi sama jëkkër mënatul naa toog muñ mais du force lislaam ma leen dagal sëy ba sax forcé wala pour nga ko. da nga koy mën nga muñ ko ndax ngor mënoo ko nee na la demal. Jimbori rek ndax da nga d'accord ci li Mbodj. ah